dëgg la uh-huh. léegi ñu ñëw ñu ñëw ñu ñëw ci wàllu góor ñi parce que góor ñi tamit am na ci ñoo xam ne sëñ bi ah am na nañoo sikk de xam nga li waaw xam nga góor sikk xam nga góor waaw soo bëggee noppalu ci moom mm-hmm. mooy li nga koy njëkk a muñal mm. mooy fidélité mooy góor lu fidèle ah bon waaw góor bindam sax yàlla mi ko bind xam ko ba ne ko may nañ la nga takk ñeenti jabar waaw mooy ñàkk gi ñàkk mën a fidèle moo tax waaw góor du fidèle mu góor moom ah dina peut-être mais exception lay nekk waaw li ëpp ci góor ñi euh, ka man seen xol ni ko yàlla bindee mën nañ yor ay mën nañ yor ay soxna yu bari ba pare bëgg ñëpp d'accord góor noonu la ko yàlla bindee waaw mooy tax góor moom soo bëggee soo fekkee dangaa bëgg a nekk ak moom côté boobu da koy baal parce que pour ñu dugg ci góor yi benn kii rek laay wax da ngay gis xale bu jigéen boo xam day tas sëyam ndax jëkkëram peut-être dafa takk beneen soxna ba pare mu dem sëyi nekk ñaareel feneen mais mais <laughs> mais loolu mais loolu loolu lan la dafa bëggul woon mais loolu dafa bëggul woon dafa bëggul woon mais tas sa sëy parce que sa jëkkër dafa takk ñaareel nga dem nekk feneen ñaareel waaw foofu nag bëgg naa fee wax lu am solo ci góor waaw loolu lan la moom xam nga àdduna su fekkee non dafa fekk ku góor ki yamalewul woon sëy ba sol sonnoon wala fële la gënoon fële la gën a sentir. am na ñoo xam sax balaa sëy bee démarré balaa commencé lañuy ñuy dem. waaw. <laughs> bu ñu jógee seen jëkkër day takk beneen jabar rek duñ ko àttan dañuy dem. dañuy buddee waaw. parce que lu ci bëri budeel mais bul dem feneen dafa nekk ñaareel. waaw parce que après doo am choix boo génnee ci sëy ba pare ba dem. ah ci lay soog a si ah, la sa mère di giif. su sa mère giifee da nga sentir ne yow am ngay ah, doom. pour que pour ku lay takkaat ngay nekk première femme day jafe. d'accord ñi lay ñi lay bëgg si waat ñëpp soo moytul dañu am soxna ba pare. wa wala wala suñu réalité yi doon ñoo xam ne du ñu tane sa borom kër ga. waaw xam nga suñu réalité yi li ci ëpp mooy nit ñi. Mhm. boo xasee ba sëy ba am doom. Mhm. ki lay takkaat lu ci bëri day fekk mu am soxna. waaw waaw loolu moo ëpp ci suñu dëkk yi léegi Euh, ndax boo ko bëggoon tak sax sa famille ñoo leen njëkkoon naan la yow kii am doom ba pare yow nga sëyegoo naa ndeysaan wax yooyu te loolu amul solo waaw nit ki baax ak nga bëgg ko mu am solo ah, ah, ah. léegi foofu hmm. man li ma ciy xalaat sama xalaat mooy nit bu fekkee da ngaa nekk moom tam leer na la yow doo góor benn jabar hmm. gise boobu da ko war di waxtaane lu compliqué la xamalu tax danga gis ku tuur dëkkëram ndox bu tàng hmm. da gis ku soore dëkkëram tey xam nga moo koy indi pour man mooy nit ki yaa ngi ko doon gëmloo ne seen vie yéen ñaar kese la ba addunay tukki mhm. musul xalaat ne yow di nga masa bi rakk beneen jabar mhm. yéen a ngi bokk di liggéey yéen a ngi bokk di tabaxandoo kër mhm. ah muy jël alalam di ko ci def yéen a ngi bokk di voyager yéen a ngi bokk dem ay weekend amul benn temps bu mu sentir na yow bis mën naa ñëw nga takk beneen jabar sentiru ko ci benn moment du ay sest du ay wax du dara nit kooku nag su xëyee benn un jour rek nga ne ko takk naa beneen jabar mm. mën na ko choqué parce que préparé woo ko psychologiquement. choc la choc la quoi. dëgg la loolu mën naa tas ab sëy. Mm. normal mën mm. naa tas sëy. am na ñoo xam ne xëy na fiiraange rek moo koy tas.